may ko wér ak jàmm may ko dëppale ko defal ko tawfeex ba mbooleem semb yi nga xam sembal na ko sëñ Tuubaa sembal ko islaam mu man ko àggale ñu ànd ko moom ginnaaw bu ñu ko nuyoo ñu ngi nuyu itam ba Touba ca kanam ci njiitul sëriñ Habib Mbakke ak sëriñ Abdul Fatah Gueye ak sëriñ Abdul Ahad Habib ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale di leen wax suñ mbégte ak suñu cant ci ñoom ci ni nga xam ne ñoom lañ yore Touba ca kanam ndax ku nekk xam na ne biñ ko yore yàggul waaye diir diir ci diir bu gàtt boobu réalisé nañ fi réalisation yoo xam ne ni yeneen organisation am na fi ba judd na fi ba jóge fi te deful fukkeelu lenn ci loolu ñu def loolu nag li leen ko may mooy organisation bu rafet ak fexe ba nit ñu wóolu wóolu leen ci liñ leen di jox ñu xam fi ñu koy def di ko gis kon loolu ñoom ñu ngi leen di ndokkee ci loolu leen sant bu baax a baax ginnaaw loolu ñu ñuy nuyu mbooleem kilifa yi nga xam ne ni teew na ci jotaayu tey bi ànd ak ñun liggéey bi ma ci tudd nag ñi nga xam ne ñooy moom lañ bokkal nekk ci këru asaka yi këru asaka yi nga xam ne yàlla baaxee nañu bañ bokk ci ñoom ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di fàttali mbooloo bi rek ne zakat man azaka a ponk la ci lislaam boo xam ne sunu borom moo ko farataal ci jullit yi maanaam moo farataal ci ñi man ñu génnee dara ci seen alal jàppalee ko ñi nga xam ne seen loxo jotuñu seen ginnaaw moom ci boppam itam moo wax ñi ko war a jox muy juróom-ñett ñoo ne tudd na leen ci alxuraan innama sadaqaatu lil fuqaraa wal masaakin wal aamiliina alayha wal muwallafati quluubuhum wa fi riqaabi wal ghaarimiina fi sabilillah sunu borom ci boppam moo leen tudd ñu juróom-ñett ñooñu war ne ñoom ñoo war a lekk asaka buñ xoolee nag bi lislaam jamono yi nga xam ne ni lislaam mooy àtte ci àdduna bi bo loolu lislaam yemut yoona ko rek waaye dafa wutoon ab kuréel boo xam ne ni ñoo daan dox di jëli asaka ci ñi ko war a joxe ñooñu ñoo doon ñetteelu ci ñoo ñett juróom-ñett yi mu tudd ñetteel ñetteel ba ñu ñu tuddi alhamdulilah alayha ñooñu doon seen liggéey mooy ñuy dem ci ñu war a joxe asaka seet lañ war a joxe ñu ko ñu ko génnee ñu koy dajale fi béréb di ko jox war a jox Touba Touba ci kanam taxawal ko dafa mel ne daa dellu daa delluwaat dundalaat sunna soosu fexe ba eh, lu amoon solo loolu nga xam ne amoon na ci lislaam muy ñoo xam ne ñoo dañoo feetoo di di jëli asaka di ko jox ñu ko war a jox mu fexe ba delloosi ko ci këru asaka yi nga xam ne moom moom tey kon ñoom dafa mel ne seen liggéey mooy liggéey allah amilu la alayha boobu nga xam suñu borom tuddoon na ko ci alxuraan li ma ta xam nag mooy Sénégal nag naka jekk nit ñi ñu ngi génne asaka waaye li jafe-jafe bi ci am mooy dañ ko daw seddale nañ ko war a dañ ko war a seddale ba gis nañ ne asaka li ma waroon jariñ dëgg dëgg dëgg ci fexe ba dindi coono yi ñi nga xam ne yoruñu dara ak itam euh, différence bi am ci diggante ñi am ak ñi ñàkk mu fexe ba loolu dañ mel na ne asaka ci yoon gi ñu koy génnee ak ni ñu ko doon joxee mënu woon a sotta loolu te loolu bokkoon na ci ahdaaf yi nga xam ne nii moom moo tax ñu suñu sant santaane asaka kon nag dafa mel ni kër gi nga xam ne moom lañ tudde këru asaka tey dafa mel ne dafa ñëw ci waxtoom ndax liy liggéeyam dëgg dëgg dëgg mooy fexe ba loolu mën a am ci loolu kon ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal ñooy membre ci këru asaka yi ñu ngi leen di wax ne sunu mission bi ñu sant mënta yomb ndax li ëpp solo ñun fokk ñu taaw ba nit ñi xam la mooy asaka ak bokkoo ak bëggante maanaam ci maanaam ci tabaxaatul umma ci lañ mën a fexe ba itam ñun ñu mën a bokk ci ñi nga xam ni danañ danañ dundal rok ponk bu mag boobu nga xam ne suñu boroom moo ko santaane mu bokk mu bokk ponk islaam yi te itam mu doonoon ponk bu am solo boo xam ne moo fexoon ba liñ naan euh, adal ijtimaay ya maanaam ci société société bi kon maa ngi woote ci kaw minbar bii ma nekk mbooleem jullit yi rawatina taalibe yi ñoom ñëpp ñu ànd ak ñoon ci fexe ba projet bii nga xam ne moom la ñu dénk tamit bu dis a ñu fexe ba sottal ko te mën naa ne parce que projet bii kat bokk na ci yi gën a am solo tey jii nga xam ne yoonu murid ñu ngi koy taxawal ndax li ko tax a dëgg dëgg mooy jàppale ñi nga xam ne amuñu doole fexe ba dimbali leen taxaw ci seen wet fexe ba itam ponk bi nga xam ne ponk bu lislaam la. Euh, te ku nekk xam na ne ginnaaw yonent bi ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi moom rek lañ mas a gis ponk boo xam ni ay nit taxaw nañ bañ ko ñu jël ngànnaay xeex ak ba dellu si leen kon dañ lay wane ne loolu ponk la bu am solo ci islaam kon nag maa ngi woo mbokk taalib yëpp ñu gën a jàpp ci këru asaka yi ñu xam ne lii mission la boo xam ne am na ñu ko dénk waaye nag bépp taalibe bépp murit bépp julit am nga ci sa wàll ndax fexe ba ñàkk jóge fi nit ñi ku nekk nekk mbokk ak sa morom loolu yaakaar naa mission la boo xam ne mission jurit yëpp la kon ñu ngi ciy woo di ak tënk suñu wax rek ci aaya bi nga xam ne alxuraan moo ko waxoon ne saari'u ilaa maxfiratin min rabbikum wa jannatin wa jannatin arduha as-samaawaatu wal ardu u'iddat lil muttaqiin allaziina yunfiquuna fi sarraa'i wa dharraa'i wal kaazimiina al ghayza wal aafiina ani n-naas wal aa'ibiina al muhsiniin kon ñu ngi woo ñëpp la ñu xam ne kon liggéey baa ngi nii tàmbali na tey waaye dafa dafa tàmbali rek kanam la lépp nag na ñëpp jàpp ku nekk ñëpp jàppee rek incha allah dañ ko mën a àggal fi ñu ko mën a àggal incha